وجهت وجهي لمن تكريمه بانا في سال مولد من في البحر يحبانا mbokki yi seen bio waa Serigne salew seen bio waa kër Serigne salew Serigne Mor Diop et ñu leen andil ay savon yu ama am solo bax lol ci wér gi yaram lu ci melni savon buy nevedaay fuddan lem ba ci sax savon bër boofu ay savon yo nga xamne da bax lol ci kep ku bëgg ubbeeku wala ba kep ku am tiat gaawal gaaw wuti ci savon yi savon yu am solo la ni jaay am nañ tam ay savon ku ñuul wala ku xees bépp te bu mu fekke yow la koy bayel bépp tache wala picc bu mu fekk ci yow da koy dindi ba mu set wéccé savon tinikono tinikono baax lool ci seytaane ak cat yaram wuy metti waaye itam lépp lu mu fekk sa yaram da koy dindi ba mu set wecci jox lay teen bu leer naññi ay produit liquide ay produit yu baax lool ci kuy sëy góor da koy jëfandikoo jigéen it da koy jëfandikoo seen waa kër Serigne Saliou yëmu nit rek ci ay savon waaye itam dañuy jaay lépp garab boo nga xam te ne day faj am nañ ay garab yuy faj hémorroïde ndoxum si calopathie suukar ay poudre yu baax lool ci jab am nañ ay sirop ay sirop à sawda am nañ tam ay huile huilu laaj huilu jinjeer bépp garab rek buy faj am na seen bio waa kër Serigne Saliou am nañ tam ay savon cat ubbeeku summeeku waaye yëmu ci ànd ak bayre yow mi soxla kon savon bu baax lool ci cat wala saytaane bayre gaawal gaaw seeti waa seen bio waa kër Serigne Saliou ñoo lay jox li nga soxla ci savon gaawal gaaw ñëw fii ci caaray wetu Bamba di nga ko fekk Serigne Mor Diouf nga mën ko jot ki 77 507 15 00 77 507 15 00 wala boog nga woo ko ci 76 147 83 27 76 147 83 27 Thiès Medina Fall di nga ko fekk Soxna Faat Ndiaye wala boog nga jokkoo ak moom ci 77 49 53 77 130 49 53 wala boog nga dem foofee ca Touba ca kër Serigne Sidi moom Serigne Abdoul Ahad Mbacké di ba fekk Lat Diop lépp loo soxla ci wàllum savon da koy jox ba mat sëkk seen bio waa kër Serigne Saliou lépp loo soxla ci wàllum savon dañu la koy jox ci njëg xéewale